asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi nuyu nañ leen niñ koy defee saa su nekk ci seen biir émission zap série zap série nag tànnalaat leen comme niñ koy defee saa su nekk trois séries yoo xam ne moom mooy idole idole nag kii di gis nañ ne kii di Maurice rey na Préra ba tax na kii di Margot jaare na fa dox ak wax par force Binta tamit gis nañ ni dee na ndeke bi ñu ko kidnappé woon dañ ko empoisonné woon poison boobu nag moo desoon ci yaram bi ba rey na ko sacré Chérif Mal defal na Adams bagage de ginnaaw bi ko Adams jàppee woon taal ko lepto fayto euh, war na ko ne wuyu banday baayam ba tax na defal na ko affaire kii di Latifaana dafa mel ni mi ngi commencé feeñ ndax Penda dem na ba découvrir ne espion bu abdu Fall tegoon biir West Info la pour am information yi mu bëgg yëpp waaye kenn du ministre Thierno tëral na piège am fexe ba jàpp ki nga xam ne moom mooy Soreya ak Didi ci seen yu bon yi ñu doon def lépp waaye li ma ci ku nekk yaa ngi daw euh, daw sa responsabilité di ko jiñ sa morom bu ñu jógee ci série nga xam ne moom mooy idole ñu jàll ci Pod et Marichou kii di bëtti nag gis nañ ne jamono yi moom moomee vent bu ne tissué li Pod ne yaaram kàllaa tas na kër pot ba mu ne tasar waaye fi mu toll nii nag daa mel ni problème nar na am ndax siir takk na suwaado jógee ci série boobu nga xam ne moom mooy Pod et Marichou ñu jàll ci maîtresse d'un homme marié kii di Marème kat fexe na boppam par force jël Cheikh Diagne rek moom ko waaye ki nga xam ne moom mooy biram koo xam ne nit koo xam ne dara safu ko doxaan gauche doxaan droite ku war a war nañu wax ci moom ndeysaan jalika ku jara yërëm la ndax goro fatt jëkkër sonal ki nga xam ne mooy rakki nag ndeke traumatisme yi mu am yépp dañ ko violé woon bi mu nekkee xale waaye maram nag daa mel ni tey cóoli na ndax fi mu toll ni dafa mel ni Cheikh Diagne dafa dem ba posé ko lapin ñu ne déet lal nag fi mu toll ni yéen mbokk internet yi fii la ñuy yem ak yéen mais laataa ma tàggatoo nag du ma def lu dul gërëm ko sama magu bopp boobu nga xam ne moom mooy Aïda Diouara depuis Mauritanie doomu ndey Funéchi doomu ndey Koka moo a génnee fii tey ci sañse bu yaanji bii nii euh, di leen jox rendez bu très prochainement ci seen beneen numéro Zap Série di leen ñaan aussi ngeen abonné wu ci suñu chaîne Afri Série ngir ngeen mën a am notification yi jaa ngeen jëf